un an ça se fête mboki Ben at lañu wax prestige juduna ba am Ben at ci non lañu défait plateau spécial nak bëgg ci waxtaan ak ab kilifa xeyna dina ñëw si kanam waye mbokki di leen nuyu kenn ku si nekk di la jox sa loxo fi la fekk di la nuyu la wax ni tatagal nañ leen ñu ngi prestige TV lëkkaloog Prestigechess.com. émission bi nak tay émission spéciale la waaye wa waa réseau. Nous nous ñooñu sponsorisé sponsorisé Jojo nuyu naa la sama xarit sama sœur Jojo mi si ree bu neex bi nuyu naa la. maa ngi lay fay bu baax Guèye di nuyu téléspectateur Prestige TV di leen jox yéen ñëpp seen wàccuwaay comme ni nga waxee léegi. Mhm. un an la wax te un an ça se fête looloo waral tey ñu daal di def suñu plateau bi nga xam ne dañ ciy dalal kilifa. Mhm. kilifa bi dina ñëw léegi ñu daal di toog ak moom daal di waxtaan ak moom euh, lan mooy Prestige daal di waxtaan ak moom ci anniversaire bi ñu jëm. mu daal di wax programme beeg lépp dinañ ko waxtaanee fii ci président. mais balaa kilifa yi di ñëw euh, euh, Jojo li nga sañse nii dafa rafet macha allah parce que bleu nga jël boole ko blanc daal di sàcc tuuti noir bi fan nga fan kan moo la génn fii. waa Guèye macha allah sama benn xarit bu ñu naan Abdou Khadir moom ma fekk sama kër daal di may solo génnee ma fii ne ma da nga ciy jiital blanc beeg yii rek daal koy tojal noonu. xam waa xam-xam la xam nga sañse nag macha allah yëfu prestige la. trinquons-nous s'il te plaît ñu naan ñu ñaan suñu jus. naan jus au prestige. lii mooy limonade mbokk yi kon euh, ndeysaan ñuy dalal bu baax a baax suñu kilifa suñu xarit. muy le président directeur général Pape Doumbia. ñu dalal ko fii si plateau bi Pape Doumbia yaakaar naa ne otoom laay seen ne la muy ñëw. waaw ndeysaan wàcc na. Mhm. waaw mi ngi dox le PDG ndeysaan Yexil, Yexil, le PDG ah. Nous, les lay bu PDG nous lay PDG euh, directeur directeur Précis Réseau. Ah, c'est succulent, c'est succulent c'est euh, le directeur euh, bilan bi bilan un an bi lan nga bilan un an pour wax ci parce que un an na xam parce que bi fi ñu ngi sant yàlla daal di sant yàlla bu baax a baax a baax parce que mën naa ni tey jii euh, prestige ni mu démarré ku ñu ne woon tey dina toll fii sax vraiment nga xam ne lépp yàlla la daal. lépp yàlla parce que mën naa ni tur bi may nuyu sama waaye alelo. Mm-hmm. man moo ma jox tur bi. Mm-hmm. parce que man beneen tur laa ci amoon. Mm-hmm. mu ne ma non non non prestige lay tudd.

prestige wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne ànd nañoo ñoom ci départ tey nekk duñu ñu leen di ñaanal fa ñu nekk aussi yàlla na leen ci yàlla may ndam. di ñaanal aussi ñi ñëw xam nga tey équipe de deux personnes la woon tey yegg na ba ay vingt cinq personnes. et plus donc loolu mooy woon ni kër gi mi ngi màgg daal. mi ngi màgg léegi nag li ci gën a intéressant mooy secteur bu nekk. dañ ko jox ki ko moom. xam nga élargir ko bu baax nga xamante kon ci biir un an am na ay secteurs yu nekk nga ko nga ko pàcce. waaw secteur bu ne. dañ koy yaatal. secteur bu nekk tey mën nañ taxaw ne am na ku ko xam ku fa nekk. peut-être mën nañ ne au début dañ doon jël ci di def lii di def lii di def laa mais tey leer na laaj na tey ñi boo xëyee ngeen tey sport laa ba xam nga fi nga jëm. boo nee culture di nga xam koy waxal boo nee éducation di nga xam koy waxal xam nga xam nga loolu boo nee culture di nga xam koy waxal kon yooyu yëpp mu ngi ci biir Prestige entité du benn nit mooy nekk foofu di cumuler waaw nekk maçon bëgg a nekk plombier bëgg a nekk loolu amu fi waaw tout récemment nga génn tamit Prestige eau Prestige eau ndey xaar xaar ana Modou Aïcha nan ma indil précise eau bi ndeysaan mu def eau caali ndox mi sel mi te neex ana momadou ndeysaan ma xol ma xol ndox mi ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf directeur tel nii mi ngi ni mi ngi ni eau eau chali et puis c'est c'est filtré damay dama dem ci ben usine ndox à Dakar mhm. dama musa dem usine ndox ci Dakar fekk fa trois filtres lañuy def sen filtre

au caali au prestige rek le bëgg mom lay utiliser. ndeysaan euh, ñuy nuyu bu baax a baax Babacar Dieng ak équipe nak ndax yaakaar ni comme li DG wax loolu léegi l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mom nga jox denk ko ndox mi mom mujjé juddu ci ci prestige. waaw Babacar suma grand bu baax la mais vraiment mu nekk ci depuis le début ñu ànd ci di ci liggéey mu ci jël temps sonn ci. ba mbir mi taxaw tey. vraiment day compliqué xam nga ñun dañu xaw a compliqué Sénégal. dëgg la parce que lu ma ko nëbb da ngay ñëw créer dara. Mhm. ñu jëlee sa benn nijaay bu jóge fële ñëw ne la dénk ko kii te sa nijaay ba xamul luy ndox. te affaire bi dafa laaj connaissance. Mhm. koo xam ne ci ndox la liggéey ba retraité. Mhm. soo ko dénkul ndox loo koy dénk. macha allah cest à loolu rek la man nag j'ai parfois loolu laay am ci réeróo. damay jël ki nga xamante ni moo fara nekk liggéey fa su fekkente ni nag moom munu ko après ñu xool leneen. dëgg la mais tant que amuñu flair boobu di jël ki xam. ñu jox ko nekk war a après ñun dañuy am problème de développement. sa jojo nak ñu ñëw ñu ñëw nag ci ci un an yi jojo lan nga ci wax ak lan nga koy laaj. en fait macha allah ñuy préparé suñu anniversaire bu reuy bo xamanteni euh amna na ku ma ne 72 heures nga ko bëgg def lan mo tax euh, nga préféré def ko 72 heures. waaw mais fofu balaa maa dugg foofu. da nga may baal rek. ma am lenn luma ma parce que ci bir entité yi. dafa am bo xam moo mujjee juddu. mooy production prestige production. waaw boobu mag mooy bi nga xamante ni moom ma ci gën a neex man. waaw boobu moom ma ci gën a neex. parce que li euh, may fàttali nag euh, mbokk yi euh, émission bi waa prestige production ñoom ñoo koy tourné actuellement nii doxalal directeur. boobu mën naa ni mën naa ni sama dafa bokkoon samay gént. waaw loolu dafa bokkoon ci sama parce que mbirum film dafa ma mës a neex. Mm-hmm. musique mbirum film quoi mbirum film mbirum théâtre mais dama doon dem je me rappelle cinéma Agora. xaw ma naa joojo yoo xam naa loo xam yooyu. ñu doon dem di ko de. mais directeur baay ma waay joojo mii xam na loolu yëpp xam na Agora xam na Rex. kon Poussin bi nga xam na ko de. doxalal directeur. ñuy seetaan yooyu di fay ay cent franc cent vingt cinq depuis yooyu film day nekk suñu bopp. ñu dem ba tey ñu am suñu unité de production. bopp tay mën naa ni fii ak fii ak an ñun gëm nañ dinañ bok ci ñi nga xamante entité yi nga xamni Sénégal sen film dañ ko ci compter inshallah parce que gis naa ci nit ñu am yar nit ñu am discipline ak nit ñu professionnel yow geey nga jité ko parce que lolu lolu lolu dafa rafet parce que kérok biñu monter affaire bi man am affaire bu ma ci seetaan dama ne lii est-ce que gars yi ñoo ko defar bi ma xëyee xool ko parce que ñun dofuñu quoi dañuy xool fii di xool feneen di xool feneen di xool feneen ba pare di jël di yónnee ñeneen ñoo xam ñooñ ci ëpp expérience am na ñaar ñoo xam ne Sénégal suma ma tuddoon seen tur kenn du naataamle seen xam-xam ci mbirum vidéo dama ko ne saay xoolal ma lii rek te wax ma dëgg rek te yàlla tax mu ne ma lii ku la ci wax leneen lu dul baax la dafa iñaan ndeysaan ndeysaan ku la wax leneen lu dul lii baax na dum yaa dafa iñaan waaw muy Hamidou Kébé ma koy nuyu parce que ko xamante ni la tey moom moo ñu jox amour tey lii ñuy def gëm loolu Hamadi waaw bi yàgg yi maa ngi koy nuyu bu baax a baax possible dama dum yaa c'est possible kenn moomul affaire bi te jóge ba Dakar jël ay bagages am ñëw toog fii filmer ñu montel soo ko joxee paas sax mu gedd ko daw donc ñoon ñun amuñu seen fay te yàlla seede na ni defaluñ leen dara parce que fa ñu nekk ñoo ñu ëpp xaalis ëpp ñu moyen ëpp ñu doole ñu bàyyi ñoo ñëw ni ñun la ñuy jàppale xam nga ñooñu suñ toogul ci biir nit ñi di wax seen seen seen seen seen seen mbaax ñun duñu du ñu gor ñu ngi leen di sant di leen gërëm surtout nag ci formation bi ñu defal parce tey gis nañu waa Thiès wa Sénégal laa yëpp dañuy bàbbeeku di dem Dakar pour ay production de qualité tay ñun suñu Yalla may ñu fexe ak suñu peuple bi ñu am ba taxawal ko suñu bopp fas yéene liggéeyal suñu bopp

taxawal lii mu taxaw ndax xale yi ci alxuraan yi la ñuy jàng ndax euh, suñuy doom yi lu gën a neex ñu dugal leen ci alxuraan yi alxuraan yi nag du ñu am ay moyen daara yi directeur nee na moom ak waa groupe précise ñooy ànd euh, le 10 ñu dem distribuer ak ay ay ay ay loolu rafet na macha allah joojo loolu ngay wax ci loolu. bëgg euh, prestige parce que suñu xëyee suba ñoom fii la ñuy nekk. di kafandoog ñun di reewandoog ñun ànd ak DG aussi mhm. le vendredi ba lan mooy am waaw vendredi bi à partir de dañuy def récital de Coran fii ci groupe Prestige waa bëgg nañ invité waa waaw lu ëpp fukki daara wala vingt daara ñu ngi cible daal daara yu bëri bëgg nañ leen yu bëri dañuy ñëw fii bëgg nañ jël lu dix wala vingt daara mhm. bëgg nañ ko daal tey lan la yaasin yu bëri ndaw yaasin yu bëri man ñu jolli fi directeur lolou dafa bax dafa bax alquran dafa bax ci keur degon na Serigne Cheikh Tidiane al Maktoum yàlla na yàlla yokk muni mu ni seeni biiri kër yi da leen fa tek kamilu alquran day tax seytaane du fa nek motax nan fi jang alquran yasin ni na beuri ah, ah, ah alif lam mim ni na beuri ñaar fukki dara vive prestige à part de 16 heures angon si nak dañu bëgg def caravane ndeysa caravane wër bir Thiès dal jël suñuy nit ak suñuy andando yu ñu am ya. wër bir Thiès fekk nit ñi waxtaan ak ñom expliquer len lan moy concept précis ci lan lañuy yëngu lan lañuy def parce que amna ba légui ño xamni xamuñu ko ñoo ñu dal bëgg nañ def caravane bu yaatu après midi bi distribution ay flyers may ay calendrier may ay t-shirt ainsi de suite parce que dañ bëgg mu nekk fête bo xamni boo bi ni waaw Thiès dal dinañ yëg ni prestige mi ngi feete at euh, benn atam. déjà lan ngay euh, euh, joojo lay wax ci caravane bi. waaw caravane bi du yomb macha allah parce que li mu wax tamit am na solo parce que prestige ñu bëri am na ñoo xamante ni xamuñu ko. dafa normal ñun ñu jug fekki leen. ñu xam lan mooy prestige ñu ko xam tamit ñu dem fekki leen saa saafanteeg ñoom jox leen ay cadeau loolu tamit c'est important. léegi nag xam nga lu ma bëgg nga jël nga jël jëlal kii bi parce que daa am lu ma ci gis. loolu bëgguma ko wax yow laa bëgg nga wax samedi bi daa am lu ma gis à partir de vingt une heures yow laa bëgg nga laajal ma ko déjà loolu est-ce que réellement ça sera possible ok mi ngi ci ginnaaw joojo est-ce que loolu mën naa koo laaj déjà sax ah lan de gala mag mooy am Wally Seck koy dëgg déjà waaw loolu samedi bi la mais avant loolu dafa am lu am importance loo xam dañ ko war organiser samedi bi même avant dîner de gala bi ah. waaw loolu moy cérémonie de distinction. si. ah dañuy def cérémonie de distinction. parce que lolu bo xolé daw organiser won nañ ko. moy cérémonie de distinction bi daw parce que dañu bëgg incha buñ ci yalla may ñukoy féké yalla dañ ko may dañu bëgg at bu nañ ñukoy koy organiser. Mhm. daaw defoon nañ ko. moy vraiment bon mën naa ni cérémonie boobu bok nañ li gënon na lancer précise. parce que dañ ko def ak benn euh, ñu amone ben équipe bo xamanteni ni fi nekkoon bu restreint ñu defoon suñu nominé yoo xamante ni vraiment ñu ko defee rëccuñu ci dara parce que ñiñ ko defal ñëpp ñëpp d'accord nañ ci choix yi. ñan la ñuy distinguer ñan la. waaw xam nga xam nga xam nga boo xoolee dëkk bi boo xoolee boo liggéeyee at ba at dellu si. Mm. di nga gis ci dëkk bi ñoo xamante ni distinguer nañ leen ñi gën a ràññiku ci seen domaine. mu nekk ci sport mu nekk ci politique mu nekk ci économique mu nekk ci culture waaw divers secteur yooyu daal dix secteurs. dañu taamu ñoo xamante ni ñooñ leen ci gën a ràññee ci at bi ñu ne daal ñii jar na ñu delloo leen njukkal ñun waa Prestige ñu delloo leen njukkal. na nga def euh, réunion wala sa xalaatu bopp la. non loolu dafa am dafa am boo xamante ni ñoo ñoo ñoo ko gérer équipe boobu nag dañ ciy waxtaan ba juboo ci choix yi ci choix yëpp choix yëpp yi parce que critères yoo xamante ne tey kuñ ko tegal nga dëkk Thiès doo ko contesté.

pourquoi Wali Sec parce que Wali, bon Wali, nous am des relations de relation de travail Wali, du du relations après mais ñun ak des beaucoup bokk liggéey ñu bëri Nous loolu lañ comprendre dañuy avons ci Wali ainsi de suite Nous nous dañuy avec ak Nous moom day produit nous ñu ni dañ ko soxla

malgré que ni suñu liggéey yegg na foo xamante ni ñun am na fuñ ko teg ci suñu liggéey suñu liggéey moo ñu yóbbu fenn fii mais loolu yëpp xam nga ci stratégie de communication la rek nit ko nekk yaa xam na ngay liggéey say mbir ba fi nga bëgg cible bi nga bëgg nga am ko nga am ko donc waal yi liggéey bi continuer la parce que suba mën na nekk keneen ginnaaw suba mën na nekk keneen parce que bii c'est une première rek dañuy ñaan yàlla bii après beneen année ñu defaat leneen beneen année ñu defaat leneen. ñu gis ni euh, ba tey dañuy des euh, ci anniversaire bi ci diine bi ñu gis ni promenade des Thiès waa nga choisir pour defee ko foofu pourquoi jëloo salle wala leneen pourquoi nga choisir foofu. non xam nga li liñ bëgg a def. day nekk une première à Thiès. waaw parce que liñ bëgg def dañ ko dañ bëgg a marqué empreinte ci prestige teg loo xamante ni. vraiment dina am doole xam nga dina am solo dal ci nit ñi ci ci ci ñi nga xamanteni ñoo bëgg prestige ak ñi nga xamanteni euh, prestige intéressé na leen wala yëg nañ ko wala sentir nañ ci li ñuy def pour ñu retrouver wu moo tax dañoo jël cadre boo xamanteni dina féex dina yaatu ah en plus dina am beneen beneen beneen beneen style de com mais pas euh, saal yi dañuy xam ni saal yi bon on a rien contre saal fi nekk mais dañuy li soxla. duñ ko mën a am foofu saal yi. daal mbokki Thiès ñu ngi leen wax ni xew-xew bu mag am na. Mhm. ndeysaan un an waxoon naa leen sama njëlbeenu wax ça se fête niñ koy féetee nag macha allah limal nañ leen ko ala daw mel na ba noppi. alxuraanul karim nga koy jiital ci fête bi yóbbu ay don ci daara yi. waaye nu ñu jénn waaye nga def distinction waaye na guddi ga ki nga xamante ni mooy xale bi xew si jamono doon coon sekk beeg jaaga bi faramareen bu mag bi waali balago sekk moo xew moom moo koy tëgg mbokk yi joojo loo wax ci loolu dama yàqamte sax anniversaire bi noonu def nànk nag joojo parce que nag dama leen fàttali moom mii bi def ko janvier dan bàyyi dan bàyyi ko janvier bi parce que yow organisation bi

moo bo boo soxlaa man su may su ma amee xalaat dara rek tout de suite dama koy gis ci nit moo tax damay ñëw rek ne ko diw lii de yow laa ko dénk mais da ngay gis da koy def comme lettre à la poste loolu nag ñu ci ñu ci sant yàlla bu baax mu ñuy dañu am groupe bu ndaw groupe bu ndaw la parce que un an un an la groupe bu ndaw la mu mi waaw mais li waral mooy liggéey liggéey parce que dama dama déglu benn gaayan bu ñu ma jox ci téléphone mooy ki ngeen àndaloon di tourné. mu wax lu am solo mu ne. mu ne moom ba mu amee sept ans xaw huit la dugg ci télé mu ne ma plateau bu ne dugg naa fa. di xuloo rek fu nekk dem naa fa. mais mun a yéen ba mu ànd ak yéen liggéey. musul gis ñu am discipline nii yéen. donc loolu mooy fondement. bu prestige discipline. fii dara amu fi lu dul yar ak teggin. bato boo xamante ni la ku amul yar da ngay wàcc te yàlla seede na ni ñi amul yar yëpp ñoo wàccee seen bopp mais Guèye man du ma bàyyeegum DG ci anniversaire bi xam damaa bëgg dama bëgg anniversaire <laughs> damaa bëgg xew parce que man damay gis euh, ñoo xamante ni dañ naan un an un an dañ koy xaw a xeeb dañuy def lu ndaw mais prestige ñëw jël un an def ko 72 heures wóolu toll ni Wally Seck faramareen bu mag bi mu ñëw indi ko esplanade bu Thiès. xam nga ni loolu xew-xew la déjà lan moo la may fit boobu. seet bu doon jaaxal trop doxalal déjà. fit xam nga fit bi bo ñi ma ko may. mooy man ñi may xëy leen gis mooy yéen waa Prestige parce que dafa am loo xam ni da ko xoolul quoi ci biir programme bi. gën dama lay jox benn mbir rek. Mhm. boo duggee ci biir nga def non réalisation. Mhm.

800 et quelques. Tu as devenu deux ans. Pourquoi tu as fait une vie tu le directeur Nous avons plus de 35 000 abonnés. Tu mhm. ah, avons Facebook, nous avons plus de 33 000 abonnés. Et c'est vérifiable C'est vérifiable. Ce que un nous avons c'est nombre de vues. nous avons 6 millions de vues. C'est un an. C'est un an. Il précise, c'est un an. Tu avons les vidéo yi mo gëna impressionnant ñu am 1800 vidéos. ci un an ci un an yi. 1800 vidéos. 1800 xoolal du ay tiaxan ci un an demal nga xol vidéo yi ak YouTube yëpp. da ngay gis ko def 10 ans du am sax 1000. quand ay 5 ans du am sax 1000. ñun un an ñu def 1800 vidéos. xam nga loolu dafa bari nga dem ñu ne la ci ci émission politique yi ñu la plus de 300 émissions. c'est vérifiable c'est vérifiable. nga dem ci ci culture ñu ne la cent cinquante ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite mais émission bi ma gën a marqué ci ci ci ci année bi. Mm. ci un an yi. Mm. mooy mooy panel bi ñu organisé woon. ndeysaan fële sa chambre de commerce. Thiès tàng lool mbirum décentralisation. dëgg nek fi, nekk far fi, mairie jaxasoo.

ñu bëri yóbbu nañ leen lettre taala rek moo si ñëw. vive taala kese moo sol dàllam ñëw. ndeysaan euh, monsieur le maire Talla Sylla doy gis nga yàlla ay mbiram dafa doy waar. dëgg la que xoolal taala tey dama xëy tey dama xëy gis ci ci ci kiiw kiiwam. page am mhm. mu def ci un an bintu Bintou waaw mooy ndeysaan collaboratrice am boobu tamit mu décidé woon di doon sa xarit tamit. Mhm. kooku moom mu boole woon ak taala xoolal tey la am un ci suuf. yàlla na ko yàlla yërëm. xaare ko àjjana. mbokk yi ñu ngi leen di wax nii kontaan nanu un waxoon naa leen saa se fait te dama koy répété waat. waye prestige di gërëm bu baax a baax ki nga xamante ni mooy ki yor administration bi euh, les moyens généraux muy papa Abdoulaye Meng moom xam naa dina def plateau moom tamit ci un an yi waaye di gërëm bu baax a baax Diawe Koate di gërëm alelo l'infatigable euh, il travaille dans l'ombre di nuyu nag euh, ñi nga xam ne ñooy conseiller directeur mooy ki nga xam man Mandoumbe Cissé di ko nuyu di nuyu sama xarit Saw di ko nuyu bu baax a baax waaye di nuyu nag ki xam moo de euh, dalal jàmm Binta Samb sama xarit sama yaay ju baax jooju di nuyu baax euh, Cheikh Ousseynou Sy naaru borom Touba Alimatu Sadia Modou Ndiaye xasida borom njariñ li Ola Titi maa ngi koy gërëm bala mu naan waxuma ko tey waaye di nuyu bu baax a baax a baax ki nga xamante ni moo di joojo si la mi toog Kumba Ba Ana Bisaat maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaye di nuyu doyen Khalifa Fall l'infatigable Saturne Ndione su ma limee duma ma juum damay fàtte moo tax limu ma loolu rek la waaye sama technicien yi tamit ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ki nga xamante ni moo di Ramatoulaye Cissé di ko nuyu di nuyu bu baax a baax Fatoumata Bintu di nuyu bu baax a baax Adama Ba di nuyu bu baax a baax Malick Laye Diouf di nuyu Biram Saw ñu gën koo xam ci papa Myriam Myriam Diallo maa ngi koy nuyu bu baax a baax Modou Ka diko nuyu diko sargal di tatagal di jox way njaga jey mi nga xamanteni be di baxul way ñun ñu ngi ñu ngi gis ñun njaga jey ñu koy nuyu bu baax baax directeur ñu jox la nga taggo nga nga wax ak askanu senegal wax ak askanu Thiès. Ah, moy moy fi ma la wax rek xam nga parfois fi nit ñi dañuy jog rek étiquette nit. ci lo xamni xamuñ ci dara. Mhm. pour ma rek tal la lutax man dafa luñu dara.

de remercier beaucoup le ministre des forces armées Augustin Tim. waaw vraiment nous koy nuyu bu le ministre Augustin parce que nit ku baax la waaw sunu sunu cérémonie de distinction bi maintenant, nous naa ni moom kese moo ñu le ministre Augustin ba a def une forte mobilisation yu jógee ba fàndal ñëw fii. waaw ba ba ba indi aussi maire ba maire maire bi dëkk euh, fële dama dëkk fàtt fu mu nekk Diass. ñoo ñëpp mobiliser leen ñu ñëw. xam nga yooyu yëpp dafa bu baax nit ki su lay defalee dara su bis ñëwee nga war ko feete lu mel noonu. nga koy fàttali. maire Garmi suma yaay la. man sama yaay la. waaw maire Garmi Fall man sama yaay la. waaw ma koy ma koy remercier bu baax. ma ci lépp nag ci taxawaay bi ci biir ak ci biti. parce que bokk na ci ñoo xamante ni tey jii moom amul kii amul tey jii sama kër kuy rewoon day taal odoom dem këram. donc man sama yaay kooku sama yaay bopp la. Euh, déjà may ma rek dama fàtte Abdou Aziz Guèye. wala moo ñëw ñu dugaluñ ko si. Abdou Aziz maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax boroom culture environnement mère Galmi fal man dama fekk lu bari si moom ñu toog ñun ñett mu wax lu rafet lu doy keroog bi ñuy def première distinction bi boisson yu bare bari la indi ay teraanga yu bari daal di koy jox directeur directeur bañ mu ni yey nañ samay doom dama leen koy defar ndax dama ko war a def maire Gane mi Fall nuyu nañ ko bu baax a baax waaw ñooñu lañuy ñuy nuyu di nuyu aussi ñi ñu jàppale ñëpp ah, de du

waaw ñuy kontaan trop ci moom. Mhm. parce que moom it vraiment nit ku baax la. ba mu gisee ñun li ñuy liggéey. dafa ni dafa ni kii dama ko bëgg a gis kii kan la. ñu nekk Thiès sa dëkk mu ne non kii dama ko bëgg a gis. Mhm. ma dem fa nuyu ko mu ne ma li ngay liggéey Thiès rafet na. li ngay liggéey rafet na. parce que bokkoo ci kenn yow yaa ngi jàppale ñun ñi yaa ngi jàppale mouvance bi. Mhm. kontaan naa ci trop. parce que ku serane précise du xam sax fan nga bok dama ne ma ne ma vraiment yaa ngi ñuy yaa ngi ñuy jappalé te defuñ ci yow dara. ma ko non ñun Thiès mo ñu intéressé. kep kuy liggéey Thiès ñun dañu wara jël li ngay liggéey fessel ko. ba ba yow yow fep fo bok ñu xam ni ki mi ngi liggéey. ñun ci cadre bobu motax ñun ñu ngi remercier le DG Siré di di di di remercier Edouard Latouf. Latouf parce que man mën naa suma suma suma gisuma DGM mais man mën naa nuyu Latouf mm-hmm. parce que Latouf mi ngi koy liguel fu mu nekkul waaw parce que nit ki baro jël sa directeur diko yobbu yóbbu fu ne di ne yow war nga ko liguel te mom du fekke donc Edouard Latouf mang koy nuyu bu baax mm-hmm. diko remercier diko féliciter

nice nice waaw nuyu ñoom Zal Sow. ñoom Vieux Sow. xam nga su ma jum su ma nee lim fii damay bañ génn gars yi di ma attaqué. damay farte waaw parce que précis du man tey tey du man tey ñoom la ñoom dañuy ñëw seen alal seen doole xam nga alal du xaalis. ñu bëri dañu foog ni alal xaalis la. alal du xaalis xam nga luy alal énergie bi ngay ñëw di ko defal nit. idée joxe idée. idée loolu loolu mooy alal précise idée yoy ñofi fi idée yoy gaay amuñu esprit négatif ñi fi ne ñëpp ñi fi ñëw ñëpp esprit positif dañuy démé loolu mo ñu dimbali ñu am résultat yi ñi am xeeb nañ ko loolu. vraiment ñu ngi ñaan aussi li ñu jëm yalla dimbali ñu ci. amin di ñaan ceesuwaay toute obédience xol amuñu xaar yalla di nuyu pap sar aussi. Pape Sarr bu Siré Dia bu Siré Dia ñoom Lamine Gaye di nuyu Ndoye Cheikh Ndoye di ko nuyu bu baax Cheikh Ndoye ñu waaw ñooñu xam nga dama tax damay bañu lim soo limee na ngay damay am problème di nuyu laxat Abdou Laxat Ka kooku suma xarit la waaw sama waay la sama xarit la maag moom bi ñuy bi ñuy ànd dara new fi dara new fi maag moom kese la woon mais déjà yaakaar naa ni anniversaire bi kii bi du yem fii rek dina dem dina euh, publicité ak yoyou non ñun programme lañuy def. te programme bi day tourner ci 3 mois. parce que Thiès it il faut ñu wax ci il faut ñom ñu japp ci. parce que li ñuy def ni mënoon nañ ko def ci ben roux après tej mu jàll dem. mais programme bi dañ ko accès ci Thiès. xam na ñu ma doon proposé sax na ma nako def Grand terre ma leen su boobaa doy génn cadre Thiès parce que dañ ne prestige Thiès su ma demee Grand Théâtre rek génn na ci ah, donc di di di waaw di nuyu di mm-hmm. jàppale mm-hmm. ñi nga xamante ni diñ jàpp tey dama am koo xam ni tey suma waay ju bees koo xamante ni du ku bees sax mais suma waay la koo xam dafa ñëw tey di ñu dooleel muy njëgeen waaw Adama Ndiéguène affaire bi da ko yanu. waaw ma koy ma koy dëkk dama koy dama sa félicité. ndeysaan. am na sama waajoo xam dama koy ragal bañ a tudd muy Habib. Habib waaw. man man sama waay la. mais mi ngi noonu daal Guèye maa ngi nuyu ñëpp ñam daal ni lii li ñuy sumb nii. yàlla na ko yàlla fulal. yàlla na ko yàlla fulal yàlla teel boppam. di nuyu nag mère faa ma ndeysaan waaw mooy yaayu Guèye. waaw man suma xarit la. waaw jërëjëf jërëjëf DG. jërëjëf DG eh, si eh, jooju lan ngay tàkkatoo parce que réalisateur yi ñu ngi naan ma temps baa ngi jeex waaw lan ngay lan ngay tàkkatoo.

di nuyu. vraiment di leen di eh, eh, waaw waaw waaw ah. ah, eh, di nuyu sama papa. nuyu sama yaay di nuyu samay rak. Mhm. di nuyu ñëpp daal. Mhm. di ñaan daal lii nit ñi jàpp ci te xam ni dul lu yomb. Mhm. parce que dafa am ku ma toogal mu ne ma waa yow lii xam nga ñaata la ma ne ko loolu de nekku fi. mu ne ma ah, boo mën ne ko déedéet ma ne ko ah léegi nag foo koy ma ne ko yàllaa fi ne ci loolu lañuy ñuy demee.